dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. mi moo ne woon coow ca ndajam décentralisation gi président Macky Sall woote woon démb soleil national nañu waxtaane nañu ko fa bu baax a baax ba njiit réew mi Macky sàkku ci njiital goxee goxaate ñu xool bu baax a baax anam yi ñuy doxalee ci suufas réew mi vox populi nañu président wax na démb ne fi ëpp ay risque ci réew mi ngir fit coow am fi moo di ci coowal suuf ne bés bu nekk dana jot ñaar fukki dossier jàpp juróom fukki dossier la cay nekk moo di coowal suuf ju a jur fit na ci réew mi wal Macky Sall wax naak éli locaux yi waas na leen waar na leen Sud Quotidien ne ko moom kay bàyyilu leen dara mboolem lu mu leen bëggoon a wax ci anam yi ñuy doxalee ci suufas réew mi ak permis de construire yi ñu joxe te jaaduwul Macky Sall bàyyilu leen dara maire yi nga xam ne jàmm lott na ci ñu wax leen dara ñu jëfe ko mu di ay maire rebelle Macky Sall xamal na leen ne ngir autorité état bi sax intégrité territoriale am ci réew mi jàmm am ci réew mi loolee a coowal suuf te dossier yi ma ci jot bés bu yàlla sàkk jéggi na dayoo dana yegg ba ci juróom fukki dossier ci wàllu suuf yu ñu may jugal ci sama kanam bés bu yàlla sàkk le témoigné bind ne Macky Sall dellu na dëggal démb ak kilifteefam ci kanamu maire yeeg ci kanamu président conseil départemental yi le quotidien yu mujj gi ñoom wàccal leen mu di Macky Sall mi jiite réew mi ak rakk ja Aliou Sall mi jiite association des maires du Sénégal ñoo desoon di ko xamal ne nii ñuy sajjee xef maire ak di leen di stigmatiser ci mbirum suuf doonu lu leen di dimbale lise ko ne ko boole ko kit leeral président Macky Sall ne ko maire yi mënuñoo jóg rek di jaay suuf si te amuñu ci ndigalul administration territoriale bi wala centrale bi la xewoon démb ca centre conférence Abdou Diouf ba ca Diamniadio journal la Sénégal mi ngi ko tënk ci yetti kàddu mu di Macky Sall mi ngi waar ak di yedd maire yi Aliou Sall di leen tubayul bay tuumal agent yu état bi chef de l'état di Macky Sall Vox Populi bindal ñu ci xëtamu njëkk ne mi ngi bàkk boppam di kañu mbii fa foore te tudd leen neen leen man Macky Sall su ma nee lii la ñuy def bu kenn munta nekk man li may def dama koy def boole firnde fi réew mi toll tey ak ni mu mel wute na lool ak ni mu meloon fukki jàpp fukki ak juróom ci ginnaaw suur suwaa nañu Macky Sall bu taxawee di dal ci kaw éli la koy ndax waxi suuf da leen a yab rek ne coowal suuf lu am ci réew mi rek ñoomu neen la li ko dalee Kaolack ba Louga jaar kër Sambakan Thiamène Pass Guédiawaye Pikine baaxe ay dogal yu mu jël ngir yaxanal koppari réew mi ubbil yéenekaay bi ginnaaw loi des finances bi ñu adopté ba yóbbul ko député yi ci assemblée nationale yéenekaay bi nee nañu léegi ministre bu nekk ak directeur général bu nekk say dépense sàkkal nañu la fu muy yem ñu yem ci xët mu njëkk enquête yéenekaay gis fay xibaar yu jëm ci réewum Côte d'Ivoire gi tàkk guddi yu ñu toll journal bi nee nañu réew maa ngi gën di gasax ni fukki doomi aadama ak ba 6 heures ci suba bërki démb ci digg bëccëg gi manifester yewoon ci buntu ambassade du fii ci ndakaaru préfet bu ndakaaru wax na ci latir bi nañu li mu ci wax moo di nee na ku bëgg a manifester te na nga wut autorisation ba ñu jox la ko lu ko may ku fi manifester te bu ñu la jàppee dinañu la génnee réew mi réew mi di Sénégal bés bu nekk ak bi fi xew yëral xët mu njëkku libération journal bi nee nañu ci jamono ji ñuy waxe waxi chef de bureau poste bu Dakar étoile bi wiide woon keese ba mu ne wëng jox ab sëriñam la xew ca grande poste moo gën a ne receveur ba moo ne tungaañ cent millions maanaam téeméeri millions ca kees université doomu Guinée yi fii ci euh, Ndakaaru di ci seen i manifesté euh, yu ñu amal gannaaw élection yi ca seen réew ba Badara Samb àndu ci ne bépp manifeste laata muy am dafa war a ànd ak lii di euh, déclaration sax war na ko mën a jiitu Pikine Ouest ni ki démb nag toll lañu ci fukki ndaw yu waaye tax dari teg loxo foofee laata ñu leen di bàyyi dañoo bëggoon a gàntal réunion bu conseil municipal di woy nag di laaj ñu yokkal leen seen i armée ci sax loolee kii di Pape Gorgui Ndong waxagu ci lu leer maire bu Pikine euh, Ouest nag ne mu ngi xaar liggéey bi nga xam ne ab commission bi ñu war a samp dina ko ci amal jëm ci euh, yooyu le armel fonds minier yi juróomi milliards la euh, dinañ ko jébal collectivité territoriale yi njiit moom moo ko daal di xamle Macky Sall ne dina andi ay tontu ci lu soxal élus yi jëm ci ni ñu yoree ndox mi ca dëkku kaw yi campagne jaayam gerte gi Louga nag opérateur privé yi ñoom li ñu proposé mooy juróom fukki dërëm la ñu war a jaayee lii di kilogramme gerte bi euh, ñuy nag laaj njiitu réew mi euh, teral ay cat yu leer nañ jëm ci campagne njaayum gerte gi ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaar yi ñeel aada euh, ak cosaan yéen kay lañ koy ndar keppe addu tam ci machine bi asalaamaaleykum. ay manifesté gannaaw élection yi euh, foofe ca Guinée euh, du rek Conakry naka noonu fii ci Ndakaaru ay doomu gine nag euh, ñu ngi fi amal seeni i manifester sax moo nekkoon ñaareel ba ñu dem foofu ci seen ambassade euh, ambassade bu Guinée nekk fi ci Ndakaaru ab manifeste nag boo xam ne kii di préfet bu Ndakaaru da cee àndul benn yoon ndax ba dara Samb dafa rek fàttali ne bépp euh, ndaje ci yoon yi wala ci kaw télé yi dafa war a ànd ak déclaration moom moo ko war a jiitu préfet bu Ndakaaru nag di leen artu Alioune Badara Samb ci téléphone beeg Ndete Diop. dogal bi ñu jël fàttali la rek dañuy rek ñëpp ñoo xam ne day manifester muy Guinée muy sénégalais parce que waxuñu ne Guinée rek ñooy manifester dëgg la ci ambassade bi lañ ko gisee mais que fa man di nekk rek koo xam ne da ngay yoon daf la teg nga ñëw ci autorité bi nga xam mooy yore ordre public maanaam mooy responsable muy préfet de département nga def déclaration préalable daal wax ni damaa bëgg a def nangam nangam nangam ci voie publique bi waaye xëy suba teel dajaloo baare tali sànni xeer teel ni ñu dem a dikk loolu jaaduwul ci sénégalais jaaduwul ci guinéen jaaduwul ci malien jaaduwul bépp africain yoon dafa tëral ay charte yoo xam mooy wane naka la ñu war a manifester donc lii ma génne ci communiqué damay fàttali rek ni manifestation ci réew mi ñu nekk parce que ku nekk cim réew nga doon doomu réew ma wala nga doon doomu réew frère da ngay obligé respecter règle yi nga xam ne réew mi moo ko teg donc loolu laay woote ma fàttali ni rek ah kaka ci deful nag yoon moom dafa teg ni lii ci jaar alhamdulilah ku ci jaarul yaa wàcc yoon la la ca fekk yaa ko teg sa bopp bokk na ci la mën a fekk nag mooy daan yu biis lool ca kay tooñ waaye nag comme réew yépp bu fekkee biti mooy nga dëkk daan yooyu mën na dem ba gën a sori sa yoon ñaanuñ ko en tout cas man may ñaan suñu mbokk yi nga xam ne ñooy manifester ak fu ñu mën a bokk ñu respecter li nga xam ne moom la loi teg ñun nag ci suñu wàll jël nañ disposition yépp pour garantir ordre public. situation euh, situation euh, situation bi sax foofu ca euh, Guinée dina boole ay mouvement citoyen ci fii ci Sénégal ci ab conférence de presse bi ñu war a amal nag. Euh, fii ci euh, avenue Cheikh ante Diop ci ab restaurant dañ koy amalee naka noonu waa Pikine uwest ca bu Ndakaaru ay fukki euh, ñu ngi tolloon ci fukki ndaw ñu tegoon loxo laata ñu leen di bàyyi ñoom dañu doon manifester ngir gàntal ab réunion bu conseil municipal ba foofee jëm nag ci ñu jox leen toll ci fukki hectare ak ñaar ci wàllu suuf ngir ñu mën a yaatal seeni armeer yi foofe ca Pikine bokk na ci manifestant yooyee ay membre yu collectif sama yuuf mooy euh, sama suuf ma yokk sama armeel li ñu nag bëggoon mooy ñu yaatal ko boobule armeer maire bu Pikine Ouest nag jot na ci addu waaye soriwu ci góor gi Ndong ne mu ngay xaar liggéey bi nga xam ne ab commission bu ñu war a samp war na ko amal mu ngi ci jokko bek ndongo ci li nga xamante ne xew na fi wax dëgg yàlla dama koy ñaawlu déplorer ko regretter ko conseil municipal bi li mu délibéré mooy jox na autorisation monsieur le maire mu ànd ak les autorités administratives pour extension bu site Wat Gaynde bi nga xamante ne moom moo am assiette foncière bi muy douze hectares cinq cent douze hectares sept cent la waaye da am sept hectares neuf cent yoo xamante ne kenn def fa dara am nag li ci des ci assiette bi mooy loolu nga xamante ne moom la ma collectif bi doon laaj angaar yeeg dëkkuwaay yi loolu nag bu buñ ci paree ci délibération bi conseil municipal bi décidé na ne dañuy mettre en place commission boo xamante ne le président de la commission domaniale ñuy joxe garantie yu leer que lii nga xamante ne ay préoccupations yu ñu jot la mën naa waat ne la ca war nekk intérêt yi population bi donc lañ ciy def invité maintenant les population et le collectif à beaucoup plus de sérénité extension cimetière yi mais ci biir question ordre du jour bi la bokkoon d'accord nañ ci extension cimetière loolu kay ca njëlbeen la te mosumaa bañ loolu bi ma leen recevoir bi ma leen recevoir wax naa leen ku ñu dégg loolu jotagul loolu yeggaguñ ca loolu nag commission loolu techniquement nag lañ koy définir juróom-ñetti waxtu teg na benn simili fii ci pour man RFM rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Seydou Nourou Ba. Abdou Thiam ci machine bi ñu waxtaanee fond euh, fond minier bi di koppar ñu war a jagleel miin yi fii Sénégal juróom milliard la. dinañ ko jébbal collectivité territoriale yi di ay kàddu njiitu réew mi Macky Sall nag jot na sax wax ne daal dina indi ay tontu jëm ci li soxal ñi di élu yi ñoom daal li ñu bëgg mooy ñu gën a xoolaat ni ñu yoree ndox mi ca dëkku kaw yi waaye tamit fiscalité jëm ci département yi ci ay waxtaan la amoon niki démb ji première édition bu journée euh, nationale de la décentralisation Abdou Diouf Diagne ki jiite association bi ëmb maire yu Sénégal daal dinay wax seen jafe-jafe njiitu réew mi Aliou Sall la mu gën a bàyyi xel mooy ni ñu yore ndox mi ci dëkku kaw yi ak saytu jëm si ñi ñu jox wàllu ndox mi ci dëkku kaw yi loolu war nañ koo amal mënumaa ñàkk wax ñaari gox yi muy cees ak Diourbel foofa ndox ma melut na mu war a mel ba pare ña nga xam ne ñoom ñoo ko yor nag ak ñii nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel ya benn déggoo amul seen biir ay koppar a amal seen liggéey la ñuy sàkku Adama Diouf mooy président bu conseil départemental bu Kaffrine. le a ci bi muy tëj nag waxtaan yi njiitu réew di wax fii pexe yi nga xam ne fa la fas yéenee jaare ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel yi. fas nañ yéenee jeexal lu yàggatul dara njàngat gi nga xam dañ koy am ngir fexe département yi nu ñuy amee ay koppar dinañu xool tamit naka la ñu mën a yokkee taxe d'indexation yi nga xam ne nag ci TVA yi lay jógee te gi di ko jox collectivité territoriale yi man nag jël naa dogal ci atum ren fay lu tollook juróomi milliards ci lu soxal nag fonds minier bi di des ci koppar yi ci budget bi di ñëw dinañu ko matal ñoom ñooñu tamit muy sàkku ci ñoom ñu gën a def ay jéego. je suis un peu meurtri quand je vois que même si l'État ne le fait pas personne ne le fait li nga xam ne nag moo tukkee ci waxtaan wu ñeel bëccëg gi nga xam ne dañu koo jagleel wàllu décentralisation danañu ko daal di dugal ci ñaareelu pàccu acte trois de la décentralisation bu ñu sukkandiku ko ci Macky Sall RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. leexal yu jóge ci euh, président association des maire euh, fii ci Sénégal nag Aliou Sall dafa nag wax ne mais ab maire mënul joxe wala mu jaay suuf te amul autorisation kilifa bañ toog euh, ba ñu teg ca gox ba Aliou Sall nag di mel ni daal kuy tontu kii di njiiti réew mi gannaaw ba président Macky Sall ne yenn maire yi nañu bàyyi nañu caxat caxatee suuf si ñu déglu Aliou Sall ak Abdou Diouf Diagne. souhaitons attirer votre attention monsieur le président de la république c'est que dañu bëgg nag nga bàyyi xel ci menn mbir ndax ñu bëri nañuy faral di joxañ baaraam maire yi ñu leen di xamal nag ne maire yëpp bokkuñu yam te it si lu soxal wàllu jaayam suuf benn maire mënut a jaay suuf te amu ci ndigalu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal administration bi loolu moom mënut nekk ndax boo bëggee def délibération faawu préfet mbaa sous préfet bi nga xam ne moom moo nekk ci gox boobu daat koy dëggal mu soog a mën a nekk bu weesoo loolu tamit nañu xam ne moo xam ci dëkku taax yi la mbaa ci dëkku kaw yi ñii nga xam ne nag mooy waa cadastre ak waa domaine ñoom tamit dañu fay joxe ay suufa woo gi nga xam ne nag woo nga ñu ko ne nañu gën a bàyyi xel ni nga xam ne moom lañuy joxe suuf si dégg nañu ko bu baax te dinañu ko jëfee wante nag ñi nga war a njëkk a waxal mooy agent bu état bi. association bi nga xam ne nag moo ëmb maire yu Sénégal ñu lay xamal fii ne la du jàppal tànk benn maire boo xam ne dañ laa dégg si njuuj njaaj loolu moom faaw mu leer ci boppu nit ñi. auteur d'actes même légaux mais qui soient pas conformes aux intérêts du RFM kumba tàggoo nag yéen dañuy wutali Thiès euh, Union nationale mareyeur yi fii ci Sénégal nag li ñu bëgg mooy ñu fësal liste bateau yu jóge biti yoo xam ne daal dañu napp ci waaxi Sénégal organisation ba nag euh, di euh, ñàkk rafetlu ci boobu la jamono nag li ñu jox ay licence ci yenn bateau étranger yi ñu ngi doon waxtaan ni ki démb ca Thiès Cheikh Anta Diop. L'Union nationale des mareyeurs du Sénégal se démarque de certaines organisations de mareyeurs. dañu ñëw ak Cheikh Anta Diop ci euh, kàllaama yi wolof gannaaw daal. Euh, Union des Maires du Sénégal euh, waxtaan wi ñu amaloon ni ki démb ca cees ñuy nag laaj ñu daal di fësal liste bi nga xam ne daal dañoo daal di euh, jox ay licence de pêche yenn bateau étranger yi waaye tamit ñuy naqarlu yooyu les licences de pêche ñu faral di jox ñii di bateau yooyee dañu nag xaar kii di Cheikh Anta Diop bu dee mun nañ ko wàcce léegi Abdou Thiam ñu ñëw ci kàddu yooyee si Cheikh Anta dinañ ci ñëwaat euh, xëy na laata xibaar yi di jeex ñu waxtaanee euh, lii di euh, njaayum gerte gi foofe ca Louga nag opérateur privé yi lu ñu bëgg moo ñu propo lu ñu proposé ci njaayum kilogramme gerte gi mu ngi toll ci juróom fukki dërëm ñu nag bëgg nguur gi fexe daal ba tëral ay carte yu leer nañ jëm ci boobule campagne Louga Brampol yi Abraham campagne bii ñu jëm ci wàllub commercialisation gerte nag producteurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci région bu Louga nag di ñaan ñu yokk prix bi nga xam ne moom la ñu fixé jëm ci wàllub gerte gi te ñu jàppoon ko ci deux cent dix francs ci campagne bii ñu génn Mor Batilo moom mooy président régional bu opérateur privé ak stockeur bu Louga yi. gerte mënatul jël deux Sénégal wax nañ leen ne lu mu néew néew nañ ko jënde deux cent cinquante francs le kilo te it fexe ba prix bi ñu prix fixe boo xam ne du augmenté enseignant mi fixe prix ni nga xam ne doxaloon na ko daaw war na ko seetaat bu baax ndax deux la taxawaloon ñu wàcc ko bi di jënd trois cent ak trois yi lu ñuy ñaan mooy tamit ñu réglementé jënd ak jaayu gerte gi nag ñu mun a concurrence yi lee dañoo bëgg gerte gi béykat bi jaay opérateur bi opérateur bi jaay Sonacos Sinwaa bi Indien bi ku mu mën dëgg mu ñëw Sonacos mu jaay cëmbax bi amoon daaw du amaat ren Sinwaa yi dañoo jënd gerte gi automatiquement gu baax gi nga xam moo war a nekk semence la Sinwaa yi bi mën na dee jiwu mën na ñàkk beneen bëbët boo xam ne yëkkati nañ ko nag campagne di bañ a daje rawatina ci wàllub koppar yi jëm ci bon yi li ñu waxante mooy daañu fexe ba campagne dootu am soubassement soubassement de paiement dañu fexe ba campagne bi bu décembre jotee fekk écoulé nañ ko fay nañ ñëpp ba la ñu entam beneen campagne ci tournée boo xam ne directeur général bu Sonacos amal na ko fii ci Louga nag ci la dajek opérateur privé réunion bi tax ñu def bilan wu campagne bi nga xam ne moom la ñu génn mu di 2019 2020 ngir ñu mën a xool nan la ñuy dooree campagne bi ñu jëm ndax campagne bi mën a réussir mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. dañu waxaat ci mareyeur yu Sénégal ne woon ca Thiès ngir daal bëgg ñu daal di fësal liste bi nga xam ne daal dafay wane ne am na ay bateau étranger maanaam ay bateau biti réew yu jox ay licence de pêche ñu itam naqarlu yenn licence yoo xam ne ko jox ay boto de pêche jóge biti réew Cheikh Anta Diop. kuréel gii ëmb union nationale des mareyeurs du Sénégal jóge woon fu nekk nag ci réew mi fu mel ni Joal mbuur Fass booy ba Ngaye Mekhe dikkoon fii ci diwaanu cees doon waxtaani jafe-jafe yi nga xamante ne jamono yi de ñu ngi koy dund ci biir réew mi. Thion Ndiaye moo yor seen kàddu. tey li tax ñu daje fii ci Thiès dafa am lu xew ci secteur de la pêche muy ay mbooloo yoo nga xay ay kuréel ah di wër di korompo acteurs yi ngir ñu signer leen ay licence te union union nationale des maires du Sénégal fi mu teg tànkam lépp loo nga xëy ne nii dafa ànd ak ay licence dugalu ci loxoom waxu ci ñun union nationale du marin du Sénégal pêche artisanale lañu fi nekkal licence de pêche yi nekk si géej gi loolu bari gi mu bari foo ko ndax yi nga xëy ne ñooy dem géej tey ci biir géej ndax bu ñu demee ba keesu yabay di jar cinquante mille soixante mille soixante dix mille francs yaa problème loo nga xëy ne cinq mille francs la doon jar francs la doon jar kon tey xam nañ ni géeju Sénégal amatul ay jën ñu gis na nag jamono yi nee nañ jën daa manqué ci réew mi kii di moo Modou Gueye nekk coordinateur national union association des mareyeurs du Sénégal ànd defar suñu liggéey nee na du dara lu dul bato yi nga xamante ne ñu ngi jóge bitim réew di ñëw fii suñuy waax di fi yi ñoom bato yi li ñu mbaale woon léegi ñoom la ñuy indi ci marché yi di ko jaayal seen bopp kon mareyeurs yi réew mi sonn nañ fu mareyeur sonne nag mool dee na fa te ñun nag mool yi ñooy suñuy mbokk ñooy suñuy doomi ndey ñoom sax nee nañ noppi tey ji nag toog daañu wër fépp foo xamante ne mareyeur mi ngi fa ci réew mi ak nappkat daañu fa dem gën leen a leeral jamono yi jafe yi nga xamante ni nappkat yi ak mareyeur yi ñu ngi koy am ci réewum Sénégal RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. Cheikh Tidiane maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. noo yeewoo. jàmm rek alhamdulilah yàlla na jàmm yàgg. amiin ci xibaar tàggat yaram. wàllu làmb lañ koy daal di door rek euh, arbitre yi nga xamante ni daal seen CNG bi dafa suspendre ñenn ñi ña ca des nag euh, ñu daal di leen kon bokk euh, ràjji. ñoom nag am nañu si yëkkati kàddu ka ci yëkkati kàddu nag moo di euh, Malick ngoom Pierre Malick ngoom moom moo doonoon secrétaire général bu commission centrale des arbitres la mu bëgg nag moo di CNG dal di deltu ginnaaw ci décision bi nga xamante ni daal jël nañ ko rax ci dolli tamit am na ay mbir yu bëri nga xamante ni moom di Pierre Malick Ngom daal dina ko proposé comme solution ngir bu ko daal defee lépp dal di am ci anam yi nga xamante ni daal ñoom noonu lañ ko bëggee moom jot naa dénk ay kàddu Mamadou Amar fi mu nii ci reconstruction lañ nekk defar te dama yaakaar ni képp kuy defar lawoon jafe-jafe dañ ko war a teg sur la table ngeen régler ko balaa ngeen di avancer mais bu fekkente ne équipe bi nga xam ne dafa war a jël mandat pour dawal ñaari at dafa ñëw ci dynamique ku continuer conflit yi amoon man je pense que loolu jëmalewul lamb kanam arbitre yi lan la ñuy laaj ñu gën leen considérer gën leen considérer gën leen jox seen i gëdd arbitre ba nekk Fongolimi ak fi nekk Dakar ñu leen di traiter au même pied d'égalité arbitre bi nekk dakaar aussi qu'il se sente plus sécurisé mu am sécurité sécurité bi c'est quoi ça y a une police d'assurance bi ñuy wax yow da nga ne mbër yi balaa ñuy bëre ci seen licence am na pàcc boo xamante ne que pour assurance mbër mi la maanaam bu gaañoo ci combat bi arbitre bi nga xam ne nag day juum doomu aadama la day juum sex leen boobu mën na ci juum lu ne fekk ko ci ñu ne ngelawaay ñooñu nañ leen boole ci police d'assurance boobu loolu dama waral coow li ba indi ay radiation ndegem loolu mu ngi am nag ñu bëgg a jox dox pour defar man dama yaakaar ne équipe bii di ñëw li mu war a njëkk a saytu mooy problème yi nga xam ne dañ ko fi bàyyi ponctuel mu régler ko ba pare ensemble ñu xëccandoo door a ñoo xool fu lamb jëmee kanam mais bu ñëwee nag ne day prolonger conflit yi yaakaar naa ni fi ñu jógee mën nañu lamb dina gën a sooxe ça sera regrettable pour lamb. Pierre Malick Ngom doon arbitre lamb ñu daal di wàllu basketball ak afro basket bi ñu jagleel jigéen ñi ci atum 2021 Meng moom nga xamante ni benn bu ñaar yoon champion d'Afrique doonoon ni jamono itam capitaine bu équipe nationale bu Sénégal mu ngi yëkki ay kàddu ngir daal lal ay pexe muy bu ko defee Sénégal daal di dellu ci place bi nga xamante fa la nekkoon fàttali nag Sénégal afro basket bi weesu woon fii la woon ci Ndakaaru Nigéria moom nag euh, lu mu bëgg jamono gi moo di euh, transition bi ñu daal di ko euh, réussir maanaam fexe ba pexe yi nga xam te ne jamono gi ñu ngi koy lal Sénégal mën a deltu ci place am ñu déglu ko Mamati Meng ba tey ci micro moom Mamadou Amar Dione si sama xalaat foog naa ne équipe dafa soxla ñaar ñëpp dafa soxla équipe boo xam ne que dafa am ay ñoo xam ne yàgg nañ si équipe bi am expérience bu bëri bari bëri bëri ñu andi beneen relève boo xam ne mooy mooy ñëw boo xam ne dafay jàng si anciens yi am nuñ si for ndax ëllëg bu anciens yi bàyyee ñoom ñu mën a jël relève bi c'est ça c'est toujours passé ñun bi ñu naan basket noonu la meloon parce que à l'époque dafa amoon deux équipes équipe A et kon je pense que ñu mixer les deux. ancienne et la nouvelle génération je pense que ce sera mieux mais il faut que xoolaat tamit préparation toujours comment ça se passe préparation équipe nationale du loo xam ne dañuy jël rek quatre mois six mois pour préparer leen équipe dafa war a am suivi Nigéria nag ñoom seen équipe yi dañ leen di topp malgré que ñu au niveau de l'extérieur mais état de leen di jàppale seen société d'état yi yi nekk seen réew yi jàppale leen ñu am soutien boo xam ne financièrement dañuy taxaw fii nag je pense que c'est le contraire fii nag moom à le ministère des sports wala fédération quelque benn wala ñaar a ngay dégg société yu jàpp xale yi je pense que loolu tamit équipe bu amul soutien financièrement ax ah, euh, du mën a dem te loolu foog naa il faut ñu xoolaat ko nan la équipe di doxalee nan la ñuy gérer équipe nationale yi te loolu mooy toujours suñu problème moo tax toujours ñu am ay problème parce que préparation bi du doy afro basket euh, ba ñuy jublu ci atum 2021 lañ ko fas yéene amal fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre réew bu ko nar a organisé nag ba jamono gi kenn désigné ko fàttali nag Sénégal moom daal na qualifié directement ci googule afro basket gannaaw bu mu doonee euh, pays euh, vice champion d'Afrique ñu daal di waxtaanee wàllu football ak ligue africaine des clubs champions jàppale nag ni ki tey ji ci ngoon lañoo fas yéene amal Al Ahli bu Égypte lay daal di doon ak Wydad Athletic Club bu Casablanca ca match aller ba euh, niki weekend bi nii weesu woon ca euh, Casablanca équipe bu Égypte moo leen fa fekki woon daal leen daan ñaari bal ci dara Al Ahli nag bu Égypte foofu la Aliou Badji daal di nekk doon na ni jamono jouru Casasport bu euh, Ziguinchor geneen demi-finale bi nag dañ ko daal di dax ba jëmi jamono diggante Raja bu Casablanca la ak ñi nga xamante ni Raja bu Casablanca ak ñi nga xamante ni ñoo waa Zamalek fàttali nag ca match aller ba Euh, ni ki weekend bi weesu woon itam ca Casablanca Zamalek moo leen fa fekkoon daal di leen daan euh, léegi nag euh, match googu tey ji lañ ko naroon amal wala boog ëllëg lii di demi-finale bi retour waaye dañ ko daal di dàq bi jamono la ko nag moo ni mbas mi di coronavirus daal di dugg ci équipe boobule di Raja bu Casablanca ba tax na ni ki démb waa CAF dañoo génne benn bataaxal daal di jàpp ni match googu dañ ko dàq ba jëmi jamono ba keroog googu jouru Maroc yi di daal di wér ñu daal di suubu ca deuxième manche demi-finale bi wàllu Ligue Europa ni ki démb la ñu ko doon kon bokk joué première journée euh, mbetteel nag euh, Napoli bu Kalidou Koulibaly ñoom daal nañ ko am seen digg ak doomu Hollande yi di waa Alkmaar benn bal ci dara lañ leen daal di daan foofu la ca Napoli Kalidou Koulibaly moom jot naa joué ba match bi jeex moom sax moo doonoon capitaine d'équipe beneen match ba tey euh, ñeel groupe boobule di groupe F di Real Sociedad moom dafa daal di daan ca dëkkam ñi di waa Rijeka benn bal ci dara ci groupe C bi eh, ña am ndam moo di waa Bayern Leverkusen ndam du yaa sax seen digg ak doomu France yi di OGC Nice juróom benn bal ci ñaar Apoel Beersheva moom dafa daal di daan ñi di waa Slavia Prague di équipe république tchèque ñetti bal ci benn ci poule B bi waa Arsenal ñoom daal nañoo am ndam seen déplacement bu ñu doon amal ci Autriche seen diggante ak ñi di waa Rapid bu Vienne ñaari bal ci benn Pierre-Emerick Aubameyang moom moo dugal seen butu victoire di doomu Gabon noonu itam la waa Molde daal di def seen digg ak ñi di waa Dundalk ñaari bal ci benn ci groupe A bi AS moom dafa fekki euh, ñi di waa Young Boys bu Berne daal di ko daan ñaari bal ci benn Cluj di club bu Roumanie ñoom dañoo daal daan CSKA Sofia di équipe bu ñaari bal ci dara ci groupe D bi doomu Espagne yi di waa Granada ñoom dañoo daal di am ndam seen digg ak waa PSV Eindhoven di équipe bu ñaari bal ci benn PAOK Salonique moom dafa daal di match nul diggam ak ñi di waa Omonia Nicosie eh, ci groupe D bi bu Liège moom dafa daal di eh, ñàkk ci dëkkam digganteem ak doomu Écosse yi di waa Glasgow Rangers ñaari bal ci dara geneen victoire extérieure diggante Benfica bu Lisbonne la woon ak ñii di waa Lech Poznan Benfica bu Lisbonne di équipe bu Portugal moom moo daal di am ndam ñeenti bal ci ñaar alaaji. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel a dakk cosaan dañ ci ànd ak maa ngi leen di nuyu mbokk yi réalisateur sénégalais bi di Mo Sow mu ngi euh, sargal bindkat bu mag bi di Cheikh du Kane bind ay téere yu siiw yu ci mel ni l'aventure euh, ambiguë réalisateur sénégalais bi daal dina présenté kon film documentaire bi mu def ci moom yàgg di rukk juróom fukki simili ak ñaar bay Assane Diaw moo ñu teewaloon euh, ci projection de film bi ca école bi di Isaac gaaw gi ñu jàppee bi le film documentaire daa am lu mu wund bu mu sukkandikoo ci moo sow mi ko amal. dama ko tànn parce que euh, kenn la si suñu héros yi mooy ki nga xam ne tey def na benn livre boo xam ne que xale yëpp ko war a xam xale yëpp ko war a jàng ñu koy jàng déjà ci école bi mais xam nañu ko xale yi tey fooruñu ci lecture bi donc pour ñu yombalal leen ko ñu defal leen ko en image important bi mooy que ñu am message bi mooy que lii mooy suñu baas nañ ci jàppandu pour jëm kaw loolu mooy vraiment sama attraction ci personnage melokaan biñ ciy fësal lu am solo la di xalaatu saan siis bokk ci ñi ko doon seetaan. ware na ni Cheikh Hamidou Kane nekkoon bañkat diggante Senghor ak Mamadou ja am na lu mu ci doon xalaat mu ngi ko doon wax génne tamit ndaw ñi nu ñu war a sukkandikoo si seen cosaan ak seen aada génne aussi histoire dëkk bi et lu am solo mooy jàngat bi ñu mën a jàngat mooy que Afrique. am na ay may loolu suñ ko sukkandikoo Afrique mun na développer et ñoom dañoo marqué histoire politique que ne Afrique suñu nekkee benn mun na raw àdduna bi sax. film bi nag ñi ko tax a gën a jóg mooy ndaw ñi ginnaaw bi nemmee ko dëddu gi dëddu téere yi li ñu mel moo waral ñu leen di fekk ci daara yi weeru décembre bi ñu séentu ngir xamale leen ak bile film. ci agenda bi ni ki euh, ajuma ji dañu amal conférence de presse ñi nga xamante ne ñoo jiite SODAV société sénégalaise des droits nga xamante ne ay ay weer ngi nii mu ngi am coow digganteem ak artistes yi ni ki euh, ëllëg samedi nag cérémonie dédicace téere taskatu xibaar bi di Majib Sène mu ngi koy dippee les chevauchés du xalam euh, xew-xew bi war a am bu 17 heures jotee ca maison de la presse mbokk yi fii yem ci xibaar